sur l'agenda bi waa léegi eh, nga génn Yewwi mais gis naa la ci fit waaw mais là c'est récent d'accord waaw loolu mu ngi commencé na nga nga nga génn Yewwi pourquoi Yewwi ak fit nga bugg a def euh, liaison dugg mais mais parce que ce son les mêmes presque no no ah c'est en tout cas c'est le noyau non non il faut gis nga gis nga nag presse bi da ngeen am benn rôle bu am importance bi ñu ñëwee ba élection yi jege si avec toutes les pressions qu'il y dañu dem ba gis ne c'est une urgence pour que candidats yi nga xam ne ay candidats à la présidentielle ñu booloo pour se donner les moyens d'avoir une du am élection boo xam ne bii ñi ciy war a bokk ñëpp dañ ciy bokk ba pare élection yu leer te jaar yoon donc loolu mooy initiative FIT front pour l'inclusivité ak transparence fekk na amoon na beneen front mooy F24 bi ñu koy taxawal dafa amoon ay sujets yom importance muy troisième mandat moo ci ëppoon doole affaire prisonnier politique affaire dispositif électoral affaire droits et libertés ci manifestation yi. ñun ñëpp ñu bokk ci. fu mu mujjee. déglu rek ba léegi déglu rek bi ñu demee ba ci biir affaire troisième mandat bi féete boor beneen bi yeneen dossiers yi continuer tant bien que mal parce que dafa fekk contexte boo xam ne traumatisme bu métti bi ñu defee manifestation au mois de mai avec toute la réussite au mois de juin il y a eu un traumatisme avec des morts des situations extrêmement compliquées pouvoir bi systématiquement di refuser manifestation yi loolu xaw a plombé F24 et puis il y avait de gens qui sont de la société civile il a même des gens qui sont favorables au pouvoir mais qui n'étaient pas d'accord donc bi amee élection présidentielle jege si candidats yi war a am devoir sur parce que quand même c'est eux les concernés qui sont allés voir F24 expliquer leen seen démarche ñu taxawal fit donc fit c'est ouvert à tous les candidats mais, mais... qui veulent une transparence des élections et qui sont dans l'opposition mais...